boo may seet ci réseau yi te foo bind te kàddu sama waa ji teg ci o dolil o tonton Lamine sama yaay moo waxoon ma ñëw tàggu la ndax paa bi ba muy tukki dafa ne kuy génn kër gi ne la ñëw tàggu yow moom nekkatoo gardien ci kër gi ci famille bi nga bokk te yow sax sama xarit nga bon awa dëgg la sa xarit laa si jamono yoo xam ne na ngay jàng wàcc ñëw toog ci kër gi mais léegi sa génn daa commencé bëri te olof ba muy wax buur aayul dag yaa aay man maa tax muy wax est-ce que comprendre nga lu ma bëgg waxee léegi nag bon di def benn enquête bu ndaw pour ma xam fooy dem ak si leen ngay nekk pour su ma la bëggee localiser ma xam exactement fan nga nekk. léegi question bu njëkk bu ma lay laaj mooy yàgg ñenn ay dem waaw ba xam ay góor lañ wala ay jigéen lañ ak ñaata lañ waaw loolu bëggoon naa ko xam. sorti de laa jëm te maag samay xarit rek ñooy ànd. six jigéen lañ de ak diis góor. ah awa yow tamit loolu équilibré wul xam nga bu dee dix góor six jigéen loolu xel nangu ko te man ma bëgg balance muy nekk ci digg bi benn bañu ëpp doole sa moroom te may neex moo tax bëgguma nombre impair man nombre pair rek la bëgg ti see bon côté boobu xel seetagu si mais deuxième question bi la ñuy attaqué direct bon yéen place bi ngeen di dem nañu toog nii suuf si jàkkaarloo géej gi fa nga dàgg ñëpp te leen gis wala kabanoo yooyu gars yi di defar xam ne ngay tijji fermeture bi dugg si biir kenn du leen gis ban la si. tonton Lamine léegi loolu lépp xewi na place yi daa am hôtel bu si nekk. te hôtel yi de dafa wóor te dafa am gardien ay caméra de surveillance yëpp. ah awa hôtel awa otel moom <laughs> awa daal yaa ngi perte ay points mais garaawul ba tey ñu si laaj bi quoi. léegi yéen nan ngeen di sangoo ba leen sangu si géej gi man pour man robe bi nga def baax na parce que couleur bële la te mooy loolu géej daa bële pour man robe bi baax ay tonton Lamine kan mooy sangoon ak ay robb si géej léegi deux pièces rek ngay def. deux pièces aw war nag yaa ngi gën a perte ay points deux pièces aw mën góor laa xam naa góor lu muy xalaat si deux pièces bon ba tey yaa ngi si enquête bi ah ba tey mooy loolu quoi léegi du ñuy dem si beneen question bi quoi léegi bën heure ba ban heure ngeen fay nekk une heure de temps wala trente minutes ban heure ngeen fay nekk. ñun de huit suba rek la dem huit heures si guddi nu ñëwaat duñ fa yàgg fa yàq. awa loolu 24 heures bu yàqul la 8 heures si suba bu 8 heures si ngoon kay awa loolu nelaw kese moo si manqué tëdd nelaw kese moo si manqué loolu 24 heures la léegi daal sama décision est prise quoi bu la bàyyi nga dem mais kër gi am na piscine xam nga invité say xarit comme d'habitude comme géej bëggoon dem mais ngeen ñëw si piscine bi si kër gi ma mën a toog fii di leen surveiller xam nga des sax man ma participer si fête bi <laughs> <laughs> quoi xam nga rek mooy loolu. boo bindal te kàddu sama waa ji teg ci